parce que kon ñoom ñi ngi pare pour tout kon ñi bu ñu fi nekkee di layaam layaam yi la waaja doon wax pouvoir bi day xëy parce que ils sont pour tout mais maa leen wax lii du dëñ joxewuma information lu ma teg sama loxo la voilà kooku nag ñett ñett ñett am na ñett ñuñ gémb ñett ñooñu nag maa ngi leen di wax seen bopp te damay lancer défi au monde entier sëriñ ñañ jëlee Togo ñañ jëlee Togo am na ci ñu xam wax naa leen ko te ñoom xam nañ ko ñañ jëlee Afrique du Sud am na ci ñu ma xam wax naa leen ko damay lancer défi monde entier ñett ñi kenn ka dafa yoroon réew mi ba yoratu ko ma nga bitim réew nekk giñolu Macron giñolu Macron guignol xam ngeen lan la guignol mooy xuusmaa ñàpp <laughs> ci wolof xuusmaa ñàpp macaron je n'ai jamais vu dans dans vie bu leen ma kii nag man euh, jànguma tubaab de tubaab yi ivoirien rek laay wax nu ma nu ma ko xalaatee rek laa koy waxee waaw mais musuma imaginer ci sama dund na nit dana dem ba nekk président de la république buur président de la république avec tous les honneurs honneurs yi mu war a àndal yëpp nga am ko président de la république nga detteerlu wàcc ci suuf ba nekk lu benn tubaab topp ci moom yor saagam musuma na nit ne nit mën na ñàkkee delloo gannaaw noonu ñàkkee fulla noonu ñàkkee personnalité noonu mosuma ko xalaat ñëpp xam nañ li may wax wante kooku mi ngi sonn pour dellu si parce que am na ci ñoo xam ne fii moo leen gemb bis mu ne moo wax ak nit bis bu ne moo wax ak téléphoné xaalisam a ngi ñëw téléphoné mi ngi ñëw bu mu bu mu sonn maa ko wax bu mu sonn yoroon na réew mi bind nañ ko ci list ba jeexal na dëpp nañ liste ba kenn dootu ko wëlbati dootu nekk président de la république du Sénégal jeexal na ci bu yeboo mu nangu loolu bu yeboo nag mu dem Makka dem ca Kaaba ga bu yeboo Indo yi ñëw bu yeboo euh, Togolais yi ñëw bu yeboo féticheurs yi ci àdduna bi yëpp mu dajaleen maa maalaasi defi ne moom na noppalu dootu nekk président de la république Sénégal li mu nekkoon nekk na ko jeex na am na koo xam ne mi ngi fii moom gaa ñaa ngi koy xaar ak homme d'affaires yeeg tey homme de médias yeeg borom alal yaa ngi koy xaar pour mu taxawal parti maa ko kooku nag xam na ma xam naa ko parce que miin na kër gi ni ngeen ko miinee yéen maa ko yëgal ne ko bu mu yàq xaalisam doo dégg ni mukk nekk na président de la république du Sénégal turam effacé nañ ko safini ci dundam si fini bu mu yàq xaalisam ku jël xaalisam da koy nax du ko nekk ko am na kuy xataraayu ci fan yii yéen a koy dégg de am na kuy xataraayu ci fan yii di bëgg a rey boppam di saagaak lu ne mu wax ko maa ko wax ne ko na noppalu du dégg mukk président de la république turam nekkul ci liste bi doom jum jur sax du nekk président ci réew mi kon ñett ñi maa leen lancé defi ka dem nekk guignolu Macron Macron euh, euh, muy Ousmane ñàppam kii fi ne war a taxawal gaañu di ko xaar ak kii di xataraayu fan yi ma ne ñoom ñett ñooñu kenn du ci dégg président de la république kële jeexal na dootu ko doon ñaar ñi duñ ko doon ba àdduna tukki maa lancé defi boobu xam nga ñii ñu leen mën a xañ nguur gi ñu xeex ci seen biir walla ñu war askan wi jomaay kii sonk li leen mën a xañ nguur gi ñoom ñu xeex ci seen biir ragal naa lool nag loolu ragal naa ko lool dama ne ragal naa ko lool ñu xeex ci seen biir ragal naa ko lool te ñun ay mag lañ de waaye bu loolu amul xeexuñ ci seen biir waruñ askan wi danañ fi def soixante ans soixante ans laa wax man waaye nag yàlla yamhu llahu ma yasaau wa yusabbit wa indahu umul kitab yamhu wa yusabbit umul kitab yàlla dana bind ne diw mii dana def cent nga am loo def loo xam ne waruloo ko def yàlla mere la effacer cent ba def fa dix ans te fekk cent la la bindoo mais da nga def loo xam ne njombe boo warul def la mënatu ko muñ mu effacer cent ans def ko dix ans mbaa quinze ans mbaa vingt ans loolu yàlla moo ko moom yàlla dina bind ne diw mi quinze ans la wala dix ans la nga def jëf ju baax joo xam ne dana la yokkal nga dem cent ans mu effacer dix ans quinze ans ya nga waroon def bindaat fa cent nga nga defaat cent ans moo xam ci dund la moo xam ci pouvoir la kon ñii bu ñu defee li ñu war a def laa wax te moytu li ñu war a moytu danañ fi def soixante ans lu gën a néew personne mënul dindi loolu waaye condition bi nañ def li ñu war a def te moytu li ñu war a moytu ñoom lii laa leen di wax te Sénégal yëpp nañ leen ñaanal ci loolu jàppale leen askan wi nag lan moo ñu war ñun moo révolution yëpp dafay ànd ñetti étape révolution ñetti étape lay doon maa ngi dégg président Ousmane Sonko dama baal nag ndax dégg naa mu naan bu ñu sin masticé euh, étranger bu ñu sin masticé nangam bokk ñu xalaat mooy sama leaderu politique mais mais nañu nañu man sama xalaat mooy bu ñu sin kenn waaye nañu nañu nañu recensé ñëpp kenn ku ne ñu xam looy doon 53 milliards yii ñu def ci dund bi dañ ko waroon a génne ci dund bi waruñ ko ci waroon def xam nga fu ñu ko waroon def recensement bu bees ñu annulé d'identité yi fi nekkoon def d'identité yu bees ñoom sax seen sécurité ci la ne parce que étranger yi fi nekk bu ñu wotee ñoom dañuy daanu ko ñoom seen sécurité mooy ñu defaat beneen recensement bu bees wutaat yeneen d'identité yu bees ba nga xam ne Sénégal yi dong ñooy bindu ñooy wate ñoom loolu lañu war a def ñoom loolu mooy seen sécurité mais buñ bàyyee lii gaa ñu di bindu di continuer bu watee jotee ñu xam ne yàlla buur la beneen bi ci topp mooy législation ngi ñëw député yi nañ bàyyi xel leen waa jaa ngi xataraayu am na kii xataraayu fan yi xam ngeen lu tax muy xataraayu xamuñu ko ngeen saaga yi mi ngi xataraayu parce que ci tugal muy ca France ak guignol yenn farance nekk guignolu Macron di ko téel saagam ak ñiy xeex ñëpp daje nañoo moom xamal ko ne ko yow de yow lañ fi jàpp ni nit ku dëgër nga ku mën a nekk en face ak Sonko xam nga ñoom lu tax duñ tudd jamaay nee nañ jamaay existé wul pour moom nit ku nooy la nit ku kii la koo xam ne daal amul benn kii kooku moom bu fi Sonko jogoon midi balaa trois heures ñu ñu taxañ ko sànni pour ñoom joxuñ ko importance te ñu jàpp ne nit ku nooy la ku kii ku amul benn kii ñoom nee nañ Sonko mooy dansé bi nga xam ne mooy guy yi il fallait que ñu daaneel Sonko rek daaneel régime bi moo tax nañ concentré wu seen diabolisation seen xeex yëpp ci Sonko il faut que ñu réussir Sonko rek jamaay moom dañ koy jël rek sànni fële parce que moom jàppuñ ne ku dëgër la donte la man xam naa ne góor piir la waaye ñoom noonu lañ ko jàngatee waa ji di xataraayu fan yii nag dañ koo dig ne ko ñi fi nekk ñëpp dañoo nooy yow rek lañ fi gis ne yaa am courage te dëgër pour mën a affronter ak Sonko kon tous les moyens yoo bëgg financière dañ la ko jox couvrir la même wote député yi ñëw ba wotuwul ñu def la tête de pour nga nekk président assemblée parce que euh, euh, parti yi àndoon ci ñi ñu gouverné woon booleek am na ñu nekk fi mu nekk nii ci Yewwi Sénégal xaw ma Yewwi la xaw ma danañ fekk si gaañooñu am na ñu bees ñu leen di fekk si ñu bëgg a def coalition nag nee nañ ko yow bu boobaa dañ lay jiite jiital man nga nekk man nañ gañe assemblée bi nga jiite assemblée bi moo tax muy bëgg rey boppam digg nañ koy moyen digg nañ ko bu buñ gagné jox ko assemblée nañ ko lépp te gëm nañ ne régime bi du passé deux ans pour mu daanu kon laaj na beneen taxawaay bu askan yu waree taxaw foofu laay tëjee lan moo ñu war révolution ñetti étape la dama leen di indi rek révolution Chine doy na exemple ndax réussite bu mu réussir président Mao bi moo def révolution Chine dafa jafe njëkk a def révolution lute armée xeex parce que boobu ñu ngi ci occupation Japon moom la ñuy wax ci arab yabaan ak anglais ak euh, kii euh, occupé woon Chine euh, Chine nga xam ne ñoo ko colonisé woon mu jël arme pour xeex ak ñoom bi mu réussir loolu nag mu des deuxième révolution deuxième révolution mooy les le néocolonialisme yi nga xam ne ñooy système ñoom la fa système ba bàyyi woon tabax leen comme ñii nga xam ne li may fonctionnaire yeeg journaliste yu bëri yeeg magistrat yeeg lenn ci armée lenn ci lépp système bee leen tabax mu gis ni ñii kenn mënul defar réew mi ak intellectuels yi yëpp kenn mënul defar réew mi te ñuy raxasoo leen parce que yuur seen yuur colonisation lañ ko tabaxee dootu ci dëñ